asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci li gën a fes ci bopp yéenekaay yi tey di samedi yemboog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars li gën a fës ci bopp yéenekaay yi bokk na ci le quotidien fësal ci xëtam bu njëkk moom nag mu ngi xamal ni participation bi nga xam te ni nii kii di Karim Wade defoon na ko ci nga xam ne nii mooy capitalu DP World bi moom ñi nga xam ne ñoo jiitee kër googu daal nañ ci raxas loxo ba mu set wicc le populaire daal di ñëw nag ci manœuvre bi nga xam te ni nii député ya nekk assemblée nationale ñu ngi koy def pour daal di changer li nga xam te ni mooy defin bi ñu war a defee li nga xam ni mooy élection locale yi xam ne nañ ni kat député yooyu ñett lañ kenn ki di Cheikh Tidiane Ndiaye daal di nekk ci RSD TDS kenn ki di Aïssatou Bambado Sall nek ci PS ka ca dess daal di nekk Cheikh Tidiane Diouf nek ci réew mi ne xam nañ ni ñom ñet ñoo ñëpp daal di nañuy déposer li nga xam ni moy proposition de loi bi xamle dañ tamit que ni ñoom ñett ñoo ñëpp ci li nga xam ni département Tivaouane foofu la ñu daal di l'observateur daal di séq waxtaan ki nga xam ni moy Kalidou Diallo nek PDS mom nag mu ngi xamle lan mo tax Macky Sall daal di koy na ni kat bu fekke ni day dem feulé ci APR dafay am lu koy waral wax na ni kat ki di Omar Sarr amul vision ki di Omar Sarr amul vision amul tamit li nga xamni ni moy envergure pour diriger li nga parti démocratique sénégalais PDS daal xamlé prepare nous ni kat ñom wa PDS ci préparer benn pour li nga ni observateur daal di ñuy defal tey ab njàngat jëmale ko ci édifice yi nga xam te ni nii moo nekk ci Sénégal yàqu ak melokaan bi nga xam ne nii ñu ngi koy mel xamle nañ ni fële ca APS xam fay liggéeyee ñoom dañuy toog ba un moment donné rek seen fit di tëf tëfi ñu di tiit ak njàqare goo xam te ni dara waralu ko lu dul melokaan bi nga xam ne nii seen kër gi mel na ko fële ca ministère de l'intérieur moom nee nañ immeuble moom moom na mu mel dafa déggi dayoo chaque jour muy gën a maxe chaque jour muy gën a jëm ci luy euh, lu doy waar trop looloo taxoon tey ñu daal di ciy defal ab njàngat li ko sababoon du dara lu dul yàq ba nga xam te ni nii amoon na fële ca Médina l'observateur ba tey mu ngi ñuy xamal ni kat xale yooyu nga xam ne ñàkkoon nañ fa seen bakkan seen i parents ba léegi ñu ngi xaar li nga xam ne ni mooy seen corps le quotidien daal di ñëw ñun ci xibaar bu tiis ndaxte ki nga xam ne nii mooy Chinua Achebe daal di bindoon li nga xam ne mooy livre boobu mu tuddee woon Le Monde s'effondre moom nag dafa daal di génn àdduna ni ki démb fële ca Boston le pays au quotidien daal di ñëw ak ñun séq ak waxtaan ki nga xam ne ni mooy Kumba Gawlo Seck ñoom nag ci seen waxtaan bi daal di dañ fay wax lu bëree bëri Kumba Gawlo xam le na ni statut célibataire am googu mu toll ah nee na moom nekkul première te du mujje ci jigéen bi nga xam ni moo amul jëkkër nee na dafa gën a siiw rek am na ñeneen ñu nga xam ne ñoo ko mag fuuf te ñu ngi fii ci Sénégal mënuñoo fexe ñoom it ba léegi daal di am jëkkër wax na tey ci li nga xam ne nii mooy musique sénégalaise bi xam na ni ab laisser-aller la maanaam lu waay neex def lu waay neex wax xam le na tamit jëmale ci fas ba nga xam ni nii mayoon nañ ko ko ca anniversaire universel am na nag tur bi lay tànn ndaxte tour bi naka la koy tànne nee na mu ngi hésité entre deux choses ndax nee na est-ce que du ko tuddee étalon d'or ñu ni ko lu war loolu mu ni waaw ndaxte moom or ci boppam dafa nekk ci moom ndaxte moom la ñuy wax voix d'or moom la ñuy wax moom moo am disque d'or loolu tax buy xalaat ci tur boobu ba ca des mooy gëm sa bopp ñaari tur yooyu daal lay xaar di xalaat ban la ci choisir balaa boobu ñun dañuy dem ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi ci xibaaru tàggat yaram le populaire ñëw ak ñun ci match bi nga xam ne nii war na jox ci diggante Sénégal ak Angola mu war a am tey ci bu 17h jotee ñoom nag nañ ni kat tey jii moom la bisub dëgg pour ñi nga xam ne nii ñooy suñu gaynde njaay yi ah nee nañ kat ay karamaxo ya nekk ca Guinée moom ña nga nekk ca ginnaaw équipe nationale di leen daal di soutenir l'observateur di xam ni nag dañu war a fecc ànd ak suñu gaynde njaay yi ndaxte bu nga xam ni kat tey jii daal nga xam ne ñooy joueurs yi daal di joxe caabi match boobu quotidien daal di ñëw nag ni ah suñu gaynde yi kat ñu ngi dem ci track des points bien acquis suñu làmb desendeeg ñun ci jàkkaarloo bi nga xam ne ni nii ah ñeenti mbër yi da war nañ ko def fële ca Zénith ca France tey jii ci ngoon xam ne nañ ni kat dina tàng jër ndaxte ki di Balla Gaye 2 Eumeu Sène Modou Lo ak ki nga xam ne mooy tafaatin moom fu ñu nekk fu ne du daal di sedd xam ne nañ ni kat Siteu ak ki nga xam ne nii mooy Boy Sèye dañoo war a laale ci mai bii ñu dëgg dëgmal ki ko tëgg du kenn ku dul Gaston Mbengue nga xam ne nañ ni kat loolu moom ab test de la pour ki nga xam ne nii mooy le phénomène de l'an si xibaaru jamono ji manam fait divers l'observateur daal di ñuy defal am ñanga jëmele ko ci ñi nga xamni ni ñoy policier yi nga xamni duñu mujjé fenn fudul daal di wëlbeutiku nak nekk ay bandi lu waral loolu lan mo tax phénomène bobu sétlu de plus en plus fi ci suñu rew l'observateur daal di lañ defal ab jangat lu populaire daal di ñëw ñun ci li nga xamni ni moy tejj bi ñu tëjoon Cheikh Yérim Seck xamné nañ kat ginnaw bi nga xamanteni ni ay avocat apel def nañ appel kat li di tejj bobu nga xamni ne nañ ko ko daal di nañ koy indi ci ñaari at ba paré daal di koy amande lu tollu 10 millions lolu tax le populaire daal di ñëw ñun ci àtte bi nga xam te ni nii doon nañ ko àtte kii di seex Cheikh Yérim Seck xamle nañ ni kat tëj bañ ko tëjoon wàccee nañ ko ci ñaari at ba pare war nañ ko joxee lu toll ci fukki million internet yi fii la ñu naroon a ndar keppe li gënoon a fes ci bopp yéene kaay wante balaa boobu. ndekete yo émancipation de la femme moom weesu nañ ko parité kay la ñuy wax man de yaakaaroon naa ni nag sama mbokku jigéen ñi moom dinañ nag bàyyi li nga duñ dugg sax duñ sax xalaata dugg li nga xam ni nii mooy ci làmb ji waaye déedéet je me suis kat ñenn ci jigéen ñi ñoom dinañ bëree le 4 avril ca stade Demba Diop mu doon lu njëkk nag ci fii ci Dakar ay jigéen di bëree kenn bu ko kenn umpale nañ ko seetaan foofu ndaxte kat man jigéen ñuy bëree moom dina doon trop li ma jaaxal li may laaj jitoo rek mooy naka la ñuy ngémbo ah suñu mbokk internet yi fii la ñuy naree képp nag li gënoon a fees ci bopp yéenekaay yi di leen jox dig daje altine di leen jaanal njeextalu ay bésu jàmm jërë ngeen jëf